bu la nit laabiiree laabiire gu xaw a diis ci yow xaw a metti mel ni laabiire gu ànd ko coxorte bul ko dagg waaye jariñul ci loolu mu seetlu ba di la ko wax lu wax ji metti metti jéema la bës sa xol te nga jéem a jariñu ci waxam jooju ndax ci ginnaaw dëgëraay boobu mu jëflante ak yow boo ko toppatoo woon ak mbëggeel gu xóot moo ci nekk bul mel ni ki nga xam ne ay montre yoo xam ne ay kii la montre réveil yi yeetewaate toj na ci lu baree bari buñ ko laajee montre yi lan lañ def mu ne xanaa ñoom ñoo ma yee xanaa kon montre yi daa baax ci moom mu waroon leen a décorer wala sant waaye moom mu dem toj leen noonu it la doomu aadama demee léeg-léeg nit waxee ak waxin bu dëgër bu metti boo bësut sa xol dangay daal di xuloog moom wala nga mere ko maa nga dagg ko or que boo eh, daloon rek gën a am sang-froid daal di gën a jël li mu wax jariñoo ko mën na laa jëriñ jëriñ lu rëy loo xam ne bu jàllee da ngay gëm ne kii moo la bëgg moom mi waxee yow nii euh, noonu la amee nag ca jàkkaarloo ba koo xam ne daray raay raaya loo ne mën na la yaane ci dëgg noonu la bu la ci dara jële ndekki dalay jay waaye moom moo gën a xam ne li nga nekk du noonu ku mel noonu kii moo ko gën te boo dee xool ci kaw da defe ne ko mujj kii moo la bëgg waaye ndekki woo ko njëkk kële la bëgg loolu la ñu xikma bi doon jàngal tey e, muy nasiha bu am solo bu ñu fàtte it nag di julli ci yonent bi muhammad allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ñu sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah